nguuruk sunu boroom mooy nguur gudul jeex nguur la bu dalewul fenn te du yam fenn ba mukk yàlla ci kàttanam dana compal as ci nguuram jox ko doomu aadama ngir mu doxal waaye ñu bari ci doomu aadama yi dañoo échec ku ci mel ne sunu président Macky Sall moom dafa fàtte ne yàlla ci boppam mooy fal ba tax na ci nguur gi ko sunu borom dénk jaarale ko ci askanu sénégalaise bi nga xamante ne ñoo takku taxaw taxale ko pexeeg maître Abdoulaye Wade wala sax pexeeg PDS parti démocratique sénégalaise ci jamono ji ñuy waxal ñu dénk ko suñuy kàddu jox ko suñuy carte fal ko jox ko yat bi nga xamante ne ci la war a sàmmee askanu Sénégal. mu soppali ko di ko tuur askanam rawatina jël état bu Sénégal. mobiliser ñëpp ngir rek xeex kii di président Ousmane sunku waaye l'histoire retiendra ne Macky Sall mooy ki mobiliser woon police gendarmerie nationale armée nationale état bu Sénégal ngir xeex jënn jëmm juy wax Ousmane Sonko mbokk yi ñu lu Moustapha Diop bu Walfadjri de toute façon l'histoire retiendra que Ousmane Sonko est finalement le seul sénégalais. Mhm. boo xam ne tout un état s'est mobilisé. pour bañ mu bokk une élection. dans, les grandes démocraties. Mhm. état day mobilisé pour que Mame Papa Pape Moussa, Moussa George mën a bokk élection. parce que loolu mooy démocratie. Mhm. mais que qu'un état se mobilise pour que Mame Birame bañ élection defe naa ne Sénégal rek la laa ko miin a gis mu ko feneen. beneen bi mooy. Euh, gis nga man dama ci ak qui a travaillé avec Diouf yalla na ko yàlla may gudd fan ba ci kanam kanam daf may xelal ci lu bari lool mu ne ma gis nga bi Diouf di nekk président au Sénégal. Hmm. agence judiciaire de l'État buñ ko daan euh, la magistrature de la République. confié ko Ousmane Ousmane Camara. qui a été le premier président. Ousmane Camara te dit que bi mu nekkee président euh, euh, médiateur de la République. son premier combat moo doon ñu am un siège bi ñu amee un siège moom il a été étonné de constater que les Sénégalais. Hmm. daf ci am ñu baree baree bari yoo xam ne. dañu am contentieux ak l'État mënuñu am fu ñu koy jooyee. de da leen dàq seen liggéey ñu à seen alal ex et il recevait ça un état c'est ça un état mooy ki nga xamné c'est pas de dire tout le temps l'État est fort l'État doit rester ferme non un État doit am un ci ñi nga ne un État un citoyen pour gagner a bokk élection et ça c'est moo le pays marche sur la tête mais c'est effectivement ça. Euh, pour confirmer Moustapha joxe un exemple. ñu nous avons dañuy le tout pour opposition. kaddu kaddu Moustapha Diop le sénégalais sénégalais yu bari jaaxle nañu ci doxalin bi nga xamante ne Macky Sall maa ngi koy doxalee jëmale ko ci mbirum Ousmane Sonko waaye Macky Sall ci boppam yamul ci di toroxal rek askanam waaye nag dafa tëj lépp loo xamante ne askanam maa ngi koy soxla moo xam ci dund bi nga xamante ne dafa waroon yomb loolu ci jamono ji ñuy wax ak yéen lépp a cher courant manam dox amul len lo xam ne ci réewum Sénégal ñang koy soxla wala askan bi di ko soxla mu yomb ci ñom déedéet dafa ne Macky Sall sax dafa mel askanam di def lu ko neex japp ne sax nguur gi moom da ko donnu ci ay waajuram tax na lu ko neex def te amul kenn ko sañ ay addu ci ju ñaaw nga Macky Sall askanam juge nak ci bari tëddee nañ njaaxaanaay ku ci melne ne fay ak Ousmane Racine Thion mi nga xamantene toroxal na seytane manam def na li nga xamantene askan bi ci lañ doon xaar ci bip magistrat bi nga xamantene da nga wat ngir meuna taxawal sa rew ci deug dëgg googee nag dafa mel ne état bu Sénégal ci njiitul Macky Sall dañu koy bañ Macky Sall tax na Sénégal kenn respecteetul kenn maanaam ci wàllu justice wala sax justice bu ñàkk tëddee njaaxaanaay magistrat yi bu njëkkoon dañ leen wegoon loolu gendarmerie national wala police ñu ni mel wala armée dañ leen wegoon fonkoon leen loolu waaye ci nguur Macky Sall dafa mel ne ñoom ñëpp rek gars yi dañ leen bëgg jël teg leen foo xam te ne maanaam dafa jaaduwul.